mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafet rafetlu ànd beeg euh, Sénégal set ñu ngi amati mbégte euh, daal di ñëwaat ak yéen si jotaay yi ñuy jagleel wàllu wér-gu-yaram que ñu ci àndal di docteur Abdoulaye Diallo di naturopathe docteur ñu ngi leen nuyu di la dalal ci Sénégal set di la fay mon frère euh, Jelani mm-hmm. naan daleen ak jàmm seen biir dañuy waxtaane tey ci wàllu siti waaye balaa ñuy dugg ci wàllu siti li ñuy faral di dégg naturopathe bëri wala boog sax si yow lañ koy doog a déggee doo faram fàcceel luy naturopathe ak naka lay matérialiser woo ci sa ci sa liggéey ak cabinet njàddiri bi nga bi nga yore mooy juste koo xamante dafa jàng gàncax mhm. di ko fajee c'est gàncax lu jóge ci nature bi maanaam plante mhm. plante naturelle yi waaw di ko fajee mhm. jàng ko nga mën nga sax yow ses propres comptes quoi. Mhm. d' accord créer ses euh, ni ma ko waxee dañuy waxtaanee tey euh, ci wàllu euh, site yi gannaaw bañ la bàyyee peut-être nga rafraîchir tuuti. non hmm? bu ko defee voilà ñu waxtaanee ci wàllu siti mhm. ñu bàyyi la rek nga wax ñu lan mooy siti naka lay feeñee ci yaramu doomu aadama bi. site germe buy nekk ci deret bu compliqué mm-hmm. bu nekk à l'origine presque de quatre-vingts pour cent des maladies ou voire soixante-dix pour cent des maladies mm-hmm. te yàlla xamalagu ko nit ñi à cent pour cent mm-hmm. wala bokk Sénégal lañ ko gën a xamee parce que tubaab xamu ko voilà pourquoi déjà feebar yu bëri tëleen voilà pourquoi pourquoi parfois man may naan tubaab fajul dara lu mel ni arthrose city moo ko indi soo xamul siti mënoo faj city mënoo faj arthrose parce que city bi mooy woolu yukk yi hmm. lu mel ni éjaculation précoce city moo koy indi lu mel ni même kuy chauve sa bopp du am karaw siti moo koy indi. Hmm. karaas aussi da koy joxe. waaw maa ngi ñëw. Hmm, siti ci deret bi la. Hmm. day tàngaloo deret di rey sel minéraux yi bu yàggee nag mu génn ci derme bi ci épiderme bi ci po bi di joxe comme li nga wax léegi crasse walla ër wala picc wala muy xasanloo yaram bi wala mu wextal weextal mm-hmm. wala muy muy xar tànk yi wala diggante baaraam yi di am pied d'athlète mooy loolu di weex noonu mm-hmm. parfois muy xasaw wee yi aussi dana ci feeñ di changer ay wee aussi mm-hmm. muy ñuul day yàq bët day dagg sax baaraam man mun naa ne ngaana sax siti moo ko indi hmm? kon City graaw na de. City day yàq góor ba du mën a puissant wax naa sànq day indi éjaculation précoce. Mhm. City day màgget loo nit. City day woowloo yaramu nit. City mën na tax nga gaaw am bijaaw. siti mhm. day tax yow miy jigéen say règle bloqué. wala ñuy anormal. Mhm. di tardé yenn saa yi. cité mën na tax ba jigéen ëmb bu mu jël mu yàqu muy tuuru comme ni ñu koy waxee. Hmm. foo dem ci fenkat yi ñu lay naan ay rab la walla ay liggéey la fekk cité la hmm. fu ñu lay naxee sax ne bu doon siti reenu cité yaa ngi ni daqaar walla dànk loolu fajul siti reen fajul siti c'est pas vrai. Hmm. ku la jox façon reen yi yooyu walla dinaa la ay. tànk ay daqaar day faj siti day fen waxul dëgg au contraire day yàq say rein mhm. siti dafa lu koy faj d'accord mun nga peut-être jël ay dànk wala ak ay daqaar tuuti mhm. dix pour cent boole ko garab yi koy faj dans quelques rares cas mhm. dànk daqaar ku ko moytuwul hmm. nga am problème de rein rein ku ko bàyyiwul nga problème de rein parce que nag là y de dosage jël bu bouteille dugal ci ay reen chaque heure muy gën a weex xam nga ne c'est pas dosé hmm. boroom xel sax war ko naan voilà pourquoi tubaab yi di diaboliser tradipraticiens yi di leen naan xamuñu dosage ils ont raison et c'est pas eux seulement qui les diabolisent même moi je les diabolise yi bëri aussi charlatan yi dañoo bëri ñu bëri nañuy wax fii ci YouTube yi ci télé yi ay charlatan lañu c'est des menteurs jànguñu dara xaalis rek lañu bëgg xam nga yenn saafara yi boo koy jàng sax dañ leen day ànd ak garabu diw garab del garab tel garab tel ñu naan la bayeri njaay di ànd ak waswasoor ñi ñi ñi ñi ñi ñi yow nag après à force de payer yenn garab yi ngay boole sa saafara tu te rends compte avec beaucoup de médicaments nga naan nga dëgg bii day faj lii day def lii day def li tu prends tout ça en nga naan xaaral ma jox ñii ma naan damay faj lii damay faj lii noonu la ñuy fajee wala hmm. dañ koy jàng voilà le wala garab bi dafa baax ci tànk yi nii wala tànk yi métti léegi nga dëgg fële ñu neen arthrose mooy tànk yu métti yara nga ne yor damay faj arthrose c'est di n'importe quoi tànk bu métti li koy faj ak liy faj arthrose bokkul hmm. oom yu métti li koy faj ak liy faj tànk bu métti bokkut déjà oom hmm. c'est plus lourd que tànk yi métti donc garab boobu moo ëpp dosage tuuti donc garab boobu sax bu ko nit di naan am na garab bu mu warul àndal warul sax jël benn garab parce que déjà ce qui en composé doy na ci yaram nit man duma nangu ngay faju arthrose et nerf sciatique à la fois duma ko nangu duma nangu ma lay faj hernie discale arthrose à la fois duma ko nangu duma nangu sax ngay faju siti ak arthrose à la fois parce que nag munoo faju arthrose tant que faju siti man traitement arthrose yëpp cent 000 la si man nu mu demee c'est trente mille d'abord city et 3 mois d'arthrose chaque mois c'est 40 000 nga wér parce que city bi mooy woolo yokk yi léegi li indi cause bi su ma ko fajul nu may fajee conséquences yi c'est pas possible arthrose aussi ak oom bu metti seen garab sax bokkul rhumatisme, ça n'a rien à voir avec arthrose. Rhumatisme, ça n'a rien à voir avec nerf sciatique. c'est à partir de di wàcc fes yi di wàcc hanche yi parfois ba ci suuf. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir aussi, L4, L1, L2, L3, L5, L6. Comprendre? C1, C2, C3, C4, C5, c mm-hmm. ak arthrose yeneen arthrose bokkul. Mm-hmm. arthrose lombaire sax dafa am. Mm-hmm. donc arthrose et arthrose et arthrose ça veut pas dire que tel médicament arthrose rek mën na faj yeneen arthrose yi aussi <laughs> médecine dañ koy jàng yaa xayti mm-hmm. siti de la même façon noonu la yàqee spermatozoïde góor hmm? ben oui moo tax tubaab mënu ko faj boo amee azoospermie je crois pas que ñoo am garab koy faj azoospermie maanaam. manqué ay ferñeent yu mën a tax nga am doom. parce que il te faut minimum cinquante million ba cent million pour mën a am doom. Hmm? de spermatozoïde. boo amee te cent vingt millions yëpp de benn spermatozoïde rek mooy ci dugg ci ovule bi. il faut cent vingt millions de spermatozoïdes. maximum. moyenne wala boobu moyenne. Mm-hmm. il faut cinquante millions minimum. Mm-hmm. léegi siti bi day indi loolu boo mënul faj city ñoo koy faj mën a fajee traitement longue durée boobu. Mm-hmm. même boo jëlul seen médicament yi si tu changes de régime ça peut revenir. quelqu'un ku am city day am asténospermie mooy walax jaan yi dañoo. asteno déjà tayal a ngi ci mhm. asteni alax jaan yi tayal nécro mooy dañuy dee gis nga mhm. oligospermie mhm. gis nga azoospermie téranospermie tétranospermie térano am na ñuy naan térano am na ñu naan tétrano ñaari benn lañu am na ñu naan hyperspermie am na ñu naan hypospermie loolu mënoo ko faj faju siti hmm. interdit de manger des arachides nag boo ko amee. siti. siti boo ko amee doo lekk gerte. Hmm. doo lekk mbuum parce que am na gerte. doo lekk daxi parce que am na gerte. doo lekk maafe gerte parce que am na gerte. tous les repas valable aussi ku am hépatite du lekk yi. doo lekk vinaigrette. Hmm. doo lekk tomate. Hmm. valable aussi ku am hépatite doo doo lekk rek tëdd guddi gi da ngay lekk deux heures de temps avant de dormir hmm. dégg nga bëri ay interdit sax hmm. doo lekk fromage doo lekk beurre doo lekk mayonnaise doo lekk lu lu lu lu niin ci ku am hépatite boo amee siti doo wér ci hépatite boo amee siti doo wér ci diabète man bu ma la doon faj hépatite wala ma lay faj diabète il faut nga boole ci siti ci ngay njëkkee mais doo ko jël premier mois bi parce que garab bi ngay jël déjà miinagul yaram bi donc faut pas en prendre deux il faut mhm. <laughs> yaram dañ koy nax pourquoi te presser pour avoir un résultat yaram dañ koy nax yaram dañ ko agressé mu ngi mel ni ñu bëri am na ñu ay picc seen ka seen kanam ñu kon continuer di jël njàmp rek naan nii parce que yéen seen kanam bi dañoo ñemewul agression bàyyi leen di agresser seen kanam mon dieu c'est quoi. Hmm. mu ngi mel ni ñu yor encore jël seen loxo yi rek dugal seen awra yi xamuñu loxo dafa am tooke mën na rey góor est xamu nga loolu. loxo sa loxo rek dugal sa awra mën na la rey loxo bi daa am tooke. kenn du fooy awram même fellation yi ñuy def ça ne se fait pas bàyyi leen yooyu am benn njëriñ affaire bi kay bu duggee fu mu war a dugg moo gën neex yàlla na fekk mu tooy xepp nag maa tey wax loolu. d'accord alors. pareeguma ci cité bi ayca noo mhm. xam nga li par exemple bu causé parfois da ngay reetaan lu séeréer yi ak ñi sant paa ko ak <laughs> jéej kundaay yu bon yi. <laughs> ndeysaan mhm. je remercie au passage tous les Joola mhm. surtout ñu sant Jeeju ak Baaji yi mhm. ils m'ont beaucoup soutenu en Casamance j'ai fait trois ans yu metti Casamance ñi xam sama vie Casamance xam nañ ne sonnoon naa j'ai résisté di ñu newoon du fi nekk dama ñëw rek le mardi 22 novembre 2016 rajo Zik FM Ziguinchor FM Zik. Zik FM mhm. Abdoulaye Balde moo ko moom. Khalil Jéeme moo ma introduit mhm. ak 17h ñu teg émission bi guddi ma ne waqul jaal xaq wa al baadil inna al baadil kaana zahuuqan la vérité venue pour faire disparaître le mensonge nest pas si la vérité vient le mensonge disparaît. xamba yi tuur yi yàq naa sa ndey c'est fini ni jawharatul kamal dàq jinne yi ci mbedd yi temps boobu da nga doon dox ci mbedd yi timis ngay dajak ay jinne bi ñu commencé jawharatul kamal bi di jolli fajar gi timis gi kenn gisul jinne ci mbedd yi hmm? ma ne man ñëw naa pour dàq xamba yi tuur yi kenn dootu ko fi def ci Casamance mu nangu lu ne def nañ ma ko man la mun la ma tus les animistes la ils tout fait pour me descendre kenn mënuñu ci man daal taal bu yàlla taal la hmm. ñi doon def tuur yi sax di faj nit ñi ma bi dex ñooma doon yónnee nit ñi pour ma fajal leen à l'époque les gens faisaient des mois en Casamance pour se soigner maa ko fa dindi de mhm. wallahi te neewoon naa leen bis bu ma génnee Casamance ngeen topp ma di ngeen bëgg ma ñaar fi doon ko am et <laughs> voilà hein c'est ce qui s'est passé hein <laughs> il pleure Diallo parce que Nabi Moustapha il pleure Diallo xama man nee naa la li may def maa ko maa maa ci mën mhm. hémorroïde di leen bëgg a rey foofu parce que sama mbokk joole samay kal lañ nag ak bëgg a ceeb <laughs> sëñ seexuma daf leen ñaanal tukulóor bi daa dem foofu ñaanal leen pour ceeb ñu am ceeb wala rek mm-hmm. ah dañoo naan ci ña dañoo ñu koy ñaan lu dul ceeb moom ñaanal leen lañu am ceeb moo tax ceeb rek bëri na fa <laughs> surtout jéeji kundaay yi rek uh-huh. ak baaji ndeysaan ay nit yu baax mm-hmm. lay Joola y a pas mieux terre xol yu rafet lañu yor billaahi billaahi joolaa xamul sax xuloo xamuñu xuloo xamuñu xeex xamuñu tooñ waaye kenn du leen tooñ non c'est-à-dire di ngeen di foog sax joola yi c'est pas vrai mhm. parce que juste y a Casamance gars yi foog ne tout le monde est rebelle non mhm. joolaa xamul agressivité billaahi dañoo baax seen xol set xamuñu lu bon mm-hmm. loolu c'était les animistes c'est les animistes coolaa mm-hmm. foo gis fa yem le jaata les baaji le jeeju les sambu les bajaan kenn du ñoom billaahi les saaña mm-hmm. bu joolaa passé rek séeréer ci topp séeréer ñoom ah du ñu wor franchement boo ut xarit utal séeréer ak ñoo baax séeréer joolaa ñii ñoo war a diriger Sénégal sax franchement ñaan la de si kenn kuy ñëw xanaa bon ma ñaan lu ma kenn man je m'en de la politique mhm. franchement <laughs> que X soit euh, président ou Y soit président, ça, ça, je, m'en balance. Hein. moi qui le paye. Mm-hmm. président m'a refait, ça me, ça me jamme là. Oui. fi nit ñi teg président teg ma fa président maa ko fa teg sama xaalis lay fayee mm-hmm. ko. sama mes impôts le ministre di fayee ko. samay ndaw lañu. Mm-hmm. damaa gëm sama bopp man. benn président yàlla. amul keneen benn ministre de finances laa yor Mikaël benn premier ministre laa yor Jibril benn ministre de la défense laa yor mooy Azraïl moom rek laa ragal kii di reyee yàlla du rey gëwuma yàlla bi di reyee yàlla du def lu ñaaw ëmb neuf mois ngay wasin nga sa doom dee wala yow nga dee doom ji dund yàlla du def loolu yàlla rahmaan la kooku def ko délégué waa ji Azraïl di def liggéeyam mais yàlla daf bëri yërmande accident am mère bi dee doom ji yëg kawam di di namp xamul ne yaam daa dee yàlla du def loolu man de sama yàlla bi moom du toroxalaate man daal sama yàlla bi mooy yàlla bi joxe xaalis di joxe dund mhm. dëggoo ma de d'accord nag il est hayu il est mumitu il donne la vie il tue Mais ces mots, c'est lui qui tue là. Ça, il a donné quelqu'un, le pouvoir là à quelqu'un. C'est lui le pourvoyeur, non Est-ce que talal na loxo di la jox. Hmm. Hein hmm. li <laughs> mu lay jox ci nit ñi lay jaar c'est la même chose. Hmm. su ma waxee nit ñi parfois soxla ma àjjana man je m'en fous d'àjjana ñu ne ah ma ne man jaamum yàlla pour àjjana àjjana c'est quoi man damaa faale àjjana. man àjjana moom war a jaamu parce que maa ko ëpp valeur ah ma ne waaw bien sûr c' est créature de Dieu comme moi te di yàlla créé yëpp bani aadama moo gën tedd donc maa gën tedd àjjana àjjana c' est quoi man j'ai besoin de la face de Dieu may dem makk ñu naan boo demee nga ñaanal ma ne ñaan <laughs> man dama mag pour ñaani de man gor la ma nekk ci Sénégal gii. Mmh. def jeunesse bu perturbante et perturbée di def lu ma neex ba léegi nag may happy mmh. xale bu jigéen bu tooy su ma la bu amul jëkkër su ma la nobee doxaan la maa tey góor laa di su relation bi sérieux ma takk la kenn mënu ma tere tàkk je n'ai besoin de conseil de person ragalu ma kenn man amul kenn ku ma sañ a ne doo takk su ma neexee sax takk dix fois maa tey mmh. dégg nga wala déggoo ma tey kooku sama diggante sama borom la su ma neexee sax ñaari jabar wala ñetti jabar yu ma takk ñooñu ñëpp ñu fanaan bañ nekk ma tey moo ma neex du sama jabar la hmm. ku nekk ak sa conception dégg nga wala ma c'est pas ça la religion la religion c'est le cœur hmm. nañ toppatoo d'abord xol yi dégg nga baax dem makk man ma toog fii ci Sénégal di def lu ma neex yàlla may ma lu ne lu doomu aadama di ñaan yàlla yàlla may na ma ko mm-hmm. ma dem ba makk amul leneen lu may def lu dul ñaanati àdduna kon dama xam ne gorewuma damay dem kay pour remercier ji xanaa nag dinaa gore nag benn yoon mm-hmm. hmm? mm. waaye dem ñaanal man ma dem ba kaaba awuma dara lu may ñaan lu dul àdduna lu may doy àdduna lu ko fi jar d'accord ana Haaman mm-hmm. ana Yuusuf ana Suleymaan ana Seydina Muhammad ana Jésus Christ ana Senghor ana Mitterrand ana John Fitzgerald Kennedy d'accord alors ñu bu ñu ñëwaatee ci ci cité bi ci la ñu nekkoon ak parenthèse yi nga ubbi joxe des orientations et tout sànq wax nga ko siti dañ koy faj. Mhm. docteur Diallo nu mu koy fajee. lu simple. Mhm. six sachets laa lay jox si sachets nga dem defaral ko sa bopp bouteille par bouteille six bouteilles nga naan wér nga. bu doon rek li dafa day dafa bloqué sax mun nga fa jaare nga débloqué ko mais bu mhm. débloqué nga doog a jël garabu rek la bloqué. mais mënoo tëb tëb rek nga ñëw ma jox la ma ne la quarante mille règle bloqué ma jox la règle bloqué. gis nga siti bu jigéen bu ko amee biiram fekk encore biir bi tilim day amaale fibrom bu yéexee def rapport sexuel hmm. boole ci buy lekk màdd day am fibrom boole ci aussi buy lekk euh, daxaar day am fibrom hmm. dégg nga moytu leen màdd yéen yi jigéen yi hmm. fibrom ci suñu côté yi la gën a bëree parce que nos sont inactives sexuellement c'est-à-dire trop tard la ñuy xamee góor dañuy denc seen ndaw ba am yenn âge yi du yenn xale yu jigéen yi ma xam ci Facebook wala WhatsApp bi laa ilaha illallah gis naa benn xale jigéen benn deux ans la am waaye xam na vingt deux garçons déjà hmm? moom moom day collectionné ndeysaan suñu yaay yu bàyyi ndeysaan bu ñu doon dox sax seen sër yi def nii ngelaw bi def nii seen seen fii moo lay feeñ rek trois jours dañ koy jooy hmm? waaye léegi xale jigéen ñi crop top hmm. jip bu gën a tuuti sol baa këcc seen awra di feeñ hmm. koo gis mu ngi snap téye cheveux naturel naan nii di woy si di n'importe quoi yow karawu jaambur nga yore naan nii naan toj nga fi karawu jaambur jigéen bu mel ni yow nga jël kawaram pour rafet ay titi di bel yaa ñàkk jom mhm. d'accord alors docteur ki wax nga ni nga koy fajee ku ci bëgg jot saafara boobu saafara de garab la waaw mooy saafara buy faj si di saafara mooy faj hmm. luy saafara mooy Sénégal li ñu xam ci saafara mooy aaya alxuraan hmm. maanaam li mën a faj siti xam nga gis naa ay dof yoo xam ne dañuy am dañuy am hémorroïde di dem ci sëriñ sëriñ daa mën a faj hémorroïde hmm. nit am colopathie dem ci sëriñ sëriñ daa mën a faj colopathie. Hmm. nit am prostate dem ci sëriñ sëriñ daa mën a faj prostate. nit am asthme di dem ci sëriñ sëriñ daa mën a faj asthme. Hmm. nit ñi yeewuñu peut-être que impuissance sexuelle loolu ñu takkal xala nga xam ne c'est un peu siti di muy def dafa bëri day dem day joxe sinusite man sinusite du ma la ko faj tant que fajuma la siti bis moo pare ci yow mhm. dootoo jël gara garabu dootoo dem di xool ay euh, euh, comment on appelle ça euh, allergologue siti day yàq bët siti day riir loo nopp mhm. siti day dagg karaw siti day tàngaloo yaram siti day indi arthrose siti day indi règle bloquée city day indi avortement siti day indi éjaculation précoce city day indi problème maniw city day indi stérilité siti day tax nga chauve siti dalay jox trompe bouchée city doo am appétit sexuel siti day tax jigéen du am baneex ci sëy siti hmm. day tax nga frigide nga wow yow mi jigéen doo tooy City day xarloo tànk City day joxe pied d'athlète City wax naa la day joxe arthrose mhm. City day joxe polyarthrite rhumatoïde yii yëpp duma ko faj jaarum ci City comme aussi colopathie benn yoon ngay naan sama garab mu wér 15000 ngay fay du ma la jox garabu hémorroïde raxasuma sa biir du ma la faj impuissance sexuelle wala faiblesse sexuelle raxasuma sa biir c'est pas possible. d'accord alors ku bëgg ñëw pour jot. Petit Mbao lañ nekk entre mhm. Petit Mbao am na Kalando Kalando boo jël nga ne ko kër docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi dina yi parce que am na beneen boo fa nekk Grand Mbao mhm. Ibrahima la tudd man Abdoulaye laa tudd. jarul nit ñi di woote di ñu amerde ci téléphone yi franchement l' adresse est là Petit Mbao lañ nekk entre Petit Mbao am na Kalando boo jël nga ne ko kër docteur Abdoulaye mango yi. Mhm. jeex na samedi dimanche lundi la ñuy liggéey 8h ba 14h. mardi après-midi a partir de quinze heures ñu ngi Touba ku ñëw na fekk nga añ mhm. bu kenn ñëw dama laaj añ awma añ 15 heures laay ubbi bunt bi mhm. bu fa kenn ñëw 9 heures bu fa kenn ñëw 10 heures boo ñëwee ci naaj bi ngay nekk awma mbaar ci buntu kër gi na leer nañ mhm. ku farang yaa fa ci tàngoor bi yaa yaa fa def sa bopp quinze heures laa woote 15 heures laay ubbi sama buntu kër ku fa ñëw le matin boo fëggee boo moytul ñu xudo que damay noppalu bu ma kenn dérangé xanaa nag nit bu ne bul dugg sama kër bul dugg 15 heures laay recevoir laay ubbi bunt bi bu yeboo ngeen mot 300 personnes balaa 18 ngeen jeex ma ñibbi bu ma kenn dérangé. dégg nga wala déggoo ma. bu baax kenn moomu ma. Mhm. kenn yilifu ma. kenn moomu ma kenn yilifu ma. yaa soxla li ma yor nga ànd ak yar ak teggin laaju ma la loo munul fayeeku la loo munul. li ma lay faj sax su ma la faj di nga xam ne fayoo fi tus ne teg ànd ak yar boo jaay xam-xam wala maa la raw boo jaay xaalis ma wala maa la ëpp la xaalis boo jaay juddu bu baax ma wala maa la ëpp juddu bu baax faqat boo jaay ndaanaan ma wala maa la gën ndaanaan namu ma dara. Hmm. jërëjëf docteur. waaxiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin